mbirum covid 19 nag ku ne jeex na ci réew mi rek yaa ngi fawee sa xel li nu mel nag lii di variant omicron moo ko waral bu ñu sukkandikoo ci ñii di waa RSF bu professeur Mboup moom daal dina ñuy xamal ne Sénégal am na benn cas positif lii di institut Pasteur de Dakar nag dëggal na yooyu le kàddu ndax nee na ñoom am na ñaari cas positifu variant omicron waa institut Pasteur nag ci firndeel bi ñu def identifié na ñaari cas variant omicron ab waay la bu am 28 ans dëkk Scat Urbam moom enregistrement am le 23 novembre lañu ko def ci lañ xam ne variant bi dugg na ko keneen ki di ab soxna bu am 29 ans ba nekkoon ci benn hôtel fii ci Dakar le 1er décembre 2021 la ñu def test bi ci lañu xam ne dafa am variant omicron bi yile information ñu ngi ko jëlee ci suñuy naataango yii di waa Seneweb ci communiqué bi waa Institut Pasteur def variant omicron ñu ngi ko gisee Afrique du Sud fa lañ njëkk a diagnostiqué ay cas mais yemul foofu kese ndax nit ñi dañuy dem ak ñëw dañuy voyager te variant yi dem ak dikk boobu moo moo leen di gën a lawal ci àdduna si virus bi nag gaaw naa waale mais soxorul torop comme variant delta bi déjà am na benn ñàkk déggoo bi am ci diggante institut Pasteur ak le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ndax euh, bu ñu sukkandikoo ci source a mu ngi ñuy xamal ne ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr apprécié wul sortie bi nga xam ne waa institut Pasteur def nañ ko ak waa RSF e di annoncé ci jamono ji ñu toll présence su benn variant bu tudd Omicron élection te moom Abdoulaye Diouf Sarr nekk na candidat ci mairie ville de Dakar li nu mel nag mën na yàq rythme de campagne bi nga xam ne ñu bari ñu ngi yaakaar ne dina xumb loolu ci jamono yi ñu jëm rawatina ci mois de janvier bi nga xam ne ci la ñuy tàmbali campagne électorale bi. lan moo tax ministre de la santé apprécié wul sorti wu waa institut Pasteur ci annonce bi mu def ci présence su variant Omicron loolu moo jaral laajte ñëpp en tout cas bu ñu sukkandikoo mu ngi ñuy xamal ne moom Abdoulaye Diouf Sarr recadré na ñaari institut yi te leen di xamal ne jamono yi ñu nekk du jamonoy tiitalaate ak xuppaate rawatina ci variant bu bees bi nga xam ne am na fii ci jamono yi ñu gisee ne sénégalais yi tourné woon nañ doo mbas mii di Covid 19. fi ñu toll nii nag autorité sanitaire yi ñu ngi rappelé kii di ministre de la santé ne seen wareef rek la ñuy def ci cadre communication pour mën a aartu askan wi laata musiba di am ci dëkk bi te loolu dañ ko sermoné tax li gis ci seen laboratoire na a indi fitna ci dëkk bi dañ koy artu lii moo tax ñu daal di def seen communiqué bi journal bi nag mu ngi préciser ne sorti bi nga xam ne ñaari institut yi def nañ ko muy IRSF ak institut Pasteur di wone ne Sénégal am na variance bu bees bu fi dugg mu tudd Omicron